my Capital. Yeah. Capital. Aman nih. Ah. Kok juga ini? Neel fi ma jëm. Koko lay xaar. Koko de? Ci biti bi la dugg léegi. Waye mo nga sañse ba melni jumbor. Yeen lan mo xew fu ngeen jëm ak seen sañse rëy yi. ah am programme bu riche rek. kan lañ ci tuddal ci yeen? tuddal jàmm. ah seen sañse bi ka da melni ni man jaaxal tay mom tay da ngeen ci nekk de. xewle mo ëpp tuddu. da ngeen xewle nii. xew bu rëy. kan moo ku am doom kan la seen mbokk la xanaa. waaw suñu meen bàjjan. koy war di am nga yow am nga mbokk. Mhm. naa mbokk sax de. tey de moom sañse ngeen moom. ah macha allah laf cat laf lii de waroon ngeen koo yàgg def de. bu ñu cat woon. Hmm. Hmm. Marie kon ku sañse daal day day soppi ni muy waxee soppi. bien sûr. Marie kon war nga yow toujours toujours day sañse neex nga neex nga ub sa gémmiñ ji waaw. yow lii baax na de. ni nga def ni tay ci contane na ci de. Ah, ni de mom bo ni mom bo ci saxé ni mom mm. ah légui xana nga am borom kër ne nga ba suñu kër. ah waaw loolu mom deug la mais kër est-ce que du borom kër sen bi kër gi sax. fan fi hmm dama papa asa fi ne xana nga ñew jël néegam ma nga ñew sama néeg. dedet jaru ko. ah tax. comme yi kër gi ñewal nga dëkk ben yoon. sulwé lé ma rek yeen ñu sulwé la. waaw. Nour moom mom xas naa occupé ba paré mom garawul man damay uti ci sama ki indi ko ci keur gi. mo uti daan sa jëkkër indi ko fi na fi ay imbécile la fi dak fi fi gor fi jigen fi dug dug gor de. boy ñu la yok sa nga ñëw nga ñew jël sa neex yeen ngeen yi di xalé di indi ci keur gi. ñu fi indi ay xalé wax de kan mo fi idiwo mo mi daan rap hmm ba taxaw wax nak kep ci boy yi rek yéen saay saay. waaw baax doy nga xaaral ma Lise maa ngi nii kooku xaar. gis naa ko gis naa cent mille yi mi ngi nii a man kay xaw ma woon nii nii la lii neex na de kontaan naa bu baax a baax jërëjëf ndeysaan ndeysaan am naa mbégte maa gën a bég wallaay bég naa jërëjëf merci. maa ngi mooy yéen ngi fii toog yow yaa ngi may dëggate. dafa lii yow yow muy yow ki tëb na sama kaw dama la toog li ma solo rëy kër gaa ñu wàcc ngeen toog fii. li wàcc kër gi ah koy wàccee. yow ñun dañoo riche. am nañu xaas kon. pap pap pap Fodé ah astafurlah damaa jëm fen yee meeg pap as. waaw laa fekk si suuf. muy compter cent millions xaalis bu bëri. cent millions. ki ni muy xulleeku ni mel ni ko wan dara. papa as bi muy xëy sa amul sëlmawul sax nu mu yoree cent millions di ko compter fii ci kër gi te yëguñu ko. damay fen. damay fen man maa ko gis sama bët man nii maa ko gis muy konte xaalis bu bëri mu teg ko nii. yaa teg sa bët yaw yow sa bët yi nag daa tuuti kii. yow waxal dëgg. yaa ko gis. maa ko gis. mën na nekk dëgg nag ay yow sama rakk ji moom nag chaque jour mu sagal ñu. ndeysaan kon daal aas mi xamul nuñ koy def. daa bëri ah, yéen maa leen jug nañu dem teel nañu dem toogaay ko wax. bàyyi leen ji dëggoon nga a sama ndey sama papa lay maa naw eh kusal ni eh, yow. sama rakk ngi fàttali xew ndeysaan naa di nga am lu baax. yow dangaa gore. Mm. dangaa baax bëgguñu. dëgg la man man moom cër gi nga ma jox moom man dama koo xama xama xam ba. Mm-hmm. aywa as yàlla la yàlla defal jàmm. amiin amiin amiin bi nag mérité nga ko. Mm-hmm. 100 millions bi nga doon compter nii. Mm-hmm. ak nga kaa mérité. en ko ko yaa ko yaa ko dégg muy compter. <laughs> Mm-hmm. ki nee na moo romb fi nga compter 100 millions kooku da man li ma am moo ma dàqal 100 millions. ah du ñëw loo am. Ah. ah xoolal yow da ngaa bëri caaxaan génn xaalis ñu xoolal. caaxaanuma de lu mës a dugg ci kër gi dañ koo bokk. yoruma ah, xaalis. da nga font. mais li ma am. Mm. moo ma dàqal ay millions. waaw booy naka mu waaw ah, maa nekk say émission rek waaw fa laa jógee nii nag man cent mille eh, yow fekk ko am problème un million nga koy ay waxu cent mille ak yooyu booy aw ma cent mille gi dimbali ma waaye waaw <laughs> ah, li ci mën am la yow génnee xaalis ñu seddoo ku ah, nekk am sa wàll rek ndeysaan ndeysaan wallaay <laughs> lii ñu am. Hmm. moo dàq xaalis bi lii. Hmm. maanaam mbooloo mi ñu àndal. Hmm. ci YouTube bi ñoo ñu may doole ba YouTube mën ñu jox lii cent mille abone may wax ne nag lii moo dàq xaalis bi ñu delloowaat njukkal sunu mbokk yi nga xam ne ñoo baaxoo di ànd ak ñun saa su ne li ñuy def ñu bëggal ko seen bopp jàppale ñu dooleel ñu. lii dafa neex Fodé. ah gémmiñ boo xul dëgg wax fen daal xam naa ne daal. Mhm. ah lii moom dara daa ko de vraiment. Mhm. naa mën nga ko dajji. youtube ah. mhm. kon yow lii nga déggoon. nit dangay ngay teey. waaw ah, mais amul solo dafa xër rek dafa xër. as nag lii nañ koy ubbee nag. Ah, nii la nii la nii la. neex de lii. waaw ma wàll beneen côté ban la man mi ko. ayo ɗon ko debbo ɗon ko debbo depandanke rek depandanke mari liwis pollen an so comprendre ndeysan wow wow what's going on lo hew fi ayte noru tongal tongal ɓayal ɗo waxuma la ana ñeneen ñi ñoom fabe ak ñoom ki fabe a fabe liggéey na fabe liggéey na moom dox na moom defa ada mana? Defa na ma ne moo nga studio ni قال ولا يولي سيت ولدي اما يولي اللي داري ديار سيري تو ها واه موم واه مول mari lewi ah di teranga la ah teranga teranga jaay te gis nga def nit ñi bëgg ko mhm. da ngay jëlaat loolu delloo waat leen ko ñukkal lii man maa ko jël delloowaat ko ñi nga xam ne ñoo baaxoo di ànd ak ñun ci internet bi ah ñooñu nga xam ne ñu may doole bu ñu amee doole ñoom la te nag metti na mhm. ndax gisuñu benn sponsor bu ànd ak ñun mhm. suñu doole bopp lañuy ñuy te tey war nañu am doole ñu gis nuuru ci beneen faset di jouer leneen lu bokul ak limi def ha ah? leneen leneen ci feneen yeneen facette. ah wa yow. wara nek fa grand dame nak bàyyi kaa. ni nga sañse. civilisé macha allah. tey moom la ngeen a sañse. mari louise war warna la gis ci bureau. ah mais bien sûr. Hmm? <laughs> bien sûr waaw seen papa Fodé mi tam don don benen facette. Hmm. ah fi nga wax damay appuyé bu baakha baax. jox hmm. ne mbok internet. ñong leen di siar bu baakha baax di leen magal gis nañ sen soutien. parce que bu du won soutien bi ngeen ñu soutenir li du ñew kon nak félicitations à vous. Mhm. ñun def nañu liggéey bi mais lépp lépp lépp rek yéen la. kon mhm. delluwaat nañ leen lépp. góor ngeen jàpp ci ba ñu am 100000 abonnés 1 million bi nag lañ bëgg a laal. Mhm. te loolu nag yéen ñi rek ci mën dara nag. yéen xam ngeen li ma lay wax lu may exiger la. ngeen dem ci ak laay ki abonné. neex ñu yegg ci 1 million yi pour beneen trophée mën a ñëw. ak projet yi nga xam ne ñoo fi nekk mën a yegg. moo ngi noonu noonu la demee parce que tamit projet yaa ngi fi yoo xam ne ñoo gën a neex capital mhm. mais problème bi mooy problème mu doole mhm. maanaam gisuñu benn euh, sponsor bu ànd ak ñun mhm. ñun ñooy dem ak sunu doole bopp xam nga li ñu yéene daal pour jox leen ko yëpp mënaguñ ko def ndax lan amaguñu doole bi mais man a exiger ñu ñu ñoom ñu ñëw par force ñëw def waaw li ma bëgg daal non. <laughs> non ah, nañ ci jàpp rek bul ah, forcé loolu ngeen gis. non parce que ànd nañoo ak ñun ba fii te wuñ leen. waaw ah, waaw loolu bul forcé ma bëgg daal kenn ku ci nekk. Mhm. sasuñu kenn dara mhm. mais lu waay mën a am mhm. numéro baa ngi nii ci suuf mhm. ñu jàppale ñu dooleel ñu parce que am na fu ñu bëgg a ak euh, nit ñi ak ñoom hmm? am na fu ñu bëgg a àgg ak yéen pour bégal leen rek moo ñu tax a jóg kontaan nañu bu baax a baax a baax léegi daal may wax ni lii ngeen gis nag du équipe bi équipe bi bari nañu euh, mais technique bi tamit ñu ngi nii taxaw damaa bëgg ngi xool ngeen dugg si ni na gars yi ñu xam ne ñii ñooy liggéey capital bi ah waaw yi Cheikh Anta ah? ñëwal ay Adama Ndiaye. Adama Ndiaye Robert ah, Robert. waaw Barham hmm? ah Maña. ak i mu Séni Séni Ndiaye. Laay le petit Laay. ah macha allah. et et madame et eh, madame Sène. Maria. ah merci Sène. xam nga loolu ah, macha allah maam Diarra maam Cheikh. maam Cheikh borom. <laughs> <laughs> dama bëgg technique bi. ñenn ñi ku ne dugg si ñëw dugg si ñoom ñëppay dugg ah, ñu gis leen. xam après da ngeen may ñëw persman mu jox ma téye perse waaw waaw mais damaa bëgg ñu xam ne. ñun ñii di feeñ duñ ci dara. ñii ci ginnaaw di liggéey liggéey bi ñoo ñoo jar a wax. Ah, fii ñun capital famille lañu quoi. famille yaa ngi ñuy dimbali ci raccord waa waaw yaa ngi dimbali ci raccord yi. waaw maa géré côté boobu maa maa géré xam nga. Mm-hmm. di leen wax ne daal kontaan naa di jaajëfal maire fay Naar Mama Sène xam nga mm-hmm. ak Soda. waaw jaajëfal leen ñoom ñëpp moom unité 13 bi daal parcelle bi yëpp laay wax waaw ñoom mer nga yaag mer caama waaw di wax daal booy ñoom ñëpp daal da baax ñoom euh, comment dire booy mbay mbay vraiment di jàpp ci tënk yi ah, ak siidi di wax ne oto mbalit bi nag moom bu ñëwetee mën nay wàññi piip piip bi benn piip rek doy na gars yi nañ génn parcelle ñëpp a déggoo ah fii mooy capital capital